60 jours 60 vidéos jour 11 sama gars, ñu ëpp seen dañ jàpp ni bu fekkee dañu war a commencer créer contenu pour ñu am matos bu et franchement pour vous dire la vérité li ngeen soxla mooy t-shirt bu bëri ak bu et commencer 60 jours 60 vidéos loolu rek ngeen non 60 <laughs> jours 60 vidéos c'est pas bon pour la santé mais franchement li ngeen soxla juste commencer parce que ñu ëpp am nañ li sur soxla pour def vidéo mais ne commencer commencé en fait c'est wax leen leen première vidéo ça va être super nul mais c'est très important parce que moom mooy moi moom mooy fi nga xamante ni foofu ngay commencé jubbantiwu di améliorer wu commencer à faire ay contenu de qualité parce que franchement da ne may gis ni may de vidéo mais ça fait très longtemps may jàng di def vidéo et puis peux commencé tane si vidéo yagol et ba de ma jang et aussi vous vous commencer créer contenu faire le nombre abonnés like et commentaire le li wax concentré wu vous concentré améliorer votre sa qualité vidéo crois-moi peu importe sujet booy voir bon nara wax lu la passionné lo bëgg wax tant que yow amélioré wo ni nga ko nar a ni ngay joxe sa message tant que djimo travail yow ci sa bopp juste du concentré wu ndax na lay def ba gay like na lay def ba gay commentaire les gens ils vont jamais liker commenter et dañ lay faté parce que yow essayé wo améliorer les bases manam yow ni ngay communiquer ak ñom bu féké da nga bëgg commencer créer contenu li ma lay conseil moy trois premiers mois utiliser ce téléphone cassé bul utiliser micro ce micro téléphone baax na utiliser lumière bëccëg am na fi utiliser lumière du jour bi ak ce téléphone di am vidéo yu bax donc li lay déssé moy lan nga bëgg partager lan moy sa passion et loolu non pour wax leen bu féké da ngeen di def vidéo commencer leen def lo xam te def daf leen passionné même bu féké li ngeen di passionné jën la wala légume def leen vidéo ci lool et di ngeen gis ni dina am ñeneen ño xam te ils sont passionnés comme yéen wala bëgg nañ ci xam plus et di nga leen ko jàngal di nga leen jàngal lo xam te ne peut être xamuñu ko ci won et erreur bi nga xam te ne commencer créer contenu dañ koy def lu bëri moy comparer sen bop ak ñeneen ñi yéen ak ñeneen ñi yamo leen franchement beaucoup leen évolution et naro leen beaucoup évolution pour comparer sa bop ak ñeneen ñi et aussi si sa yoon nekkul si algorithme bi concentré wu li nga mën contrôler manam def des contenus de qualité expliquer nit ñi sa passion ak lu mu mën ci doon mais man conseil bi ma leen di jox et mom lañ ma jox bi may commencé def vidéo moy soit naturel et concentré wul yow si sa vidéo bi nga mujj def nga amélioré ko de 1 et tout le temps c'est def li nga xamanteni yow bëgg nga ko sétane pas lu ñeneen ñi bëgg sétane ah, mais yow bëgg nga ko sétane te bul fàtte abonné